Mouhamad Lamine Sakho lu jiitu loolu ñu présenté kilifa yi fi nekk moom mii moo ci jiitu xam ngeen ko kenn du leen ko présenté tabaarakallah ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp di wax na rek incha allah ñu jox imam Mouhamad Lamine Sakho lu mu ñu indil rek bu noppee rek oustaz moom ñu laaj ko nu mu bëggee rek mu doxalee noonu bu ko neexee bu paree bu dee bëgg a yeeweeku ah mu yeeweeku ndax mooy borom jotaay su bëggee toog it mu toog jiite ñu gee lu mu rek baax na oustaz Sidi Ahmed maa ko waxoon na comme gàmmoo bi yonent bee ko moom bu gàmmu passé nag ma nekkoo ñu mas ci saxaaba yonent yi waaye xulafaa rashidina yi jiitu ci nag moo taxoon ma ñaanoon ko nekkoon ko nañu waxtaan ci Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali ndax ñi jamono bindoo am na ñu ñu di leen xas am na ñu ñoo xam ne xas leen rek mooy seen mécc te ñooñu nag buñ baaxut ku baax amatul ci àddina ba bu fekkee saxaaba yooyu sikki nañ kon ñëpp sikk génnew ci kenn nag bu fekkee ne saxaaba yooyu dañ sikk kon yàlla amatul ku sikkut ci àddina xulafaa rashidina yi amuñu benn gàkk taasuñu tilimuñu ku leen di gàkkal nag yaa yàlla waaw àddina bi léegi nit ñi lu ne lañ ñeme waaye ku ñemee jël sa làmmiñ bi di ko teg ci deru Seydina Abubakar man xaw ma lan nga xaw ma ban lan nga lan loolu moom daf may jaaxal kenn du ne la jullit nga moom noonu la ñuy xasee Seydina Omar noonu la ñuy xasee Seydina Ousmane noonu lañ gën a bañee nag Seydatuna Aïcha ñoom daal ko dul Seydina Ali yi doo nit loolu de yonent bi santaane loolu de yonent bi waxu loolu de sallallahu alayhi wa sallam digle wu ko ashaabi ka nujumi bi ayyihimu iqtadaytum ihtadaytum génnewul kenn rawati nag ñi nga xam ne yonent bee leen joxoñ ne bu ma fi jógee ñoo may wutu buñ jeexee ñoom ñeenti nag nguur a fii ne loolu rek leer na kon nag billah nahmaduhu subhanahu wa taala ala ma asbagha alayna min an-ni'am wa basata lana min al-judi wal-karam wa usalli wa usallimu ala al-wasilati al-a'zam wal-habibi al-akram sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawi al-madaya wal-huram bokk julli di fi daje ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci place bu tedd bi ñu fekk leen nga xam ne dina fàttali ku xam taarixu yonent bi bi muy dugg Madina ay banti ma rek la yëkkati ba mu tolloog taxawaayu nit mu fay jaamu boromam te yonent yi jiitu woon amuñu ko yonent ba mu doon bala ngaa julli da nga dem ci jàkk ja moom nag yàlla ne ko ju juilal lii ardu masjidan yàlla defal ne ma fu ma jaam fu ma ko jaamu muy noonu nuyu sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit Chérif Ibrahima Haydara At-Tijaani fekk ko ci këram fekk ko ci njabootam waaye fekk ko ci fekkin bu ñu neex muy ngoonu àjjuma te dañuy wax ne ku ci gis njabootu yonent bi sa yaram aram na safara ku ci gis wëliyu sa aram na safara ku ci gis nitu yàlla sa yaram aram na safara te ñett yooyu yëpp daje fi kon ñu sant bu baax ci fekk fekk nuyu mbooloo mi ko fekk waaye ma jël kàddu goo xam ni ñaari kàddu la yu kenn di wax muy sama kàddu ak kàddu sama genn wàll muy Souley ah, alxaaji Souleymane sàmm bi nga xam ni ku xam sërif xam nga ko ku ma xam xam nga ko ku xam addina bi xam nga ko di koy jéggalu nag sa kanam shérif ñoo waroon ànd waaye am ku fa jaar di ñëw am na ko xam sa ma ko bàyyi ci gannaaw ma jiituwaale ko fi waaye ñoo waroon a ànd ñëw waaye yàlla alhamdulilah bi ñu ko fi daje sàmm ñu ngi lay nuyu di lay ziar baax di nuyu sunu sang bii nga xam ni lépp la ci kër si Ahmad Bamba Mbàkke muy sëñ Sidi Dieng nekk koo xam ni fa tabarakallahu ku oyof la ku baax la ku àttan ci soxlaay jaam yi la rawatina soxlaa Souleymane Samb mii sëriñ loolu ñu ngi la koy seedeel xam nga ci lu bari nuyu oustaz Mbeng imam bi xam ne fa la julle yàgg laa sopp yàgg bëgg a gis tey bi may départ fekk na sax mu ngi waaj di dem waaye ma ne nañ fa jaar nga ziyaare Chérif indi noodu Modou Fay Saaxo moom di doom ci sa xarit signal nga xam ni tey téeréem bii nga xam ne mool nañ ko dugal nga ci sa loxo macha allah ba téere yee tasaaroo muy diwaan bu mag àddina bi yëpp jot ci sa loxo bii la yàlla yàlla sottalee nga ci sant bu baax la ciy gërëm nuyu gàññiñ fi fekk waxtaan wi du gudd dama koy gàttal ndax li nga wax daf ñu doy lool ñu ngi àndal Ousseynou Kambi moom it di sa soppe lool di soppe xadra bi yëpp biñ ñëwee ñu ngi fekk ni ñuy jàng salaatal fatih ci seen wadifa njàngin mu dal moo xam ne xaw na jafe léegi bari na wasifa yoo xam ni soo toogee yàq yi ngay njëkk a dégg shérif malalta lu bari la ñu koy wax soo ne malalta moo yow yonent yow yàlla yokkan nga ci li ngay def soo ne malalta yàlla feesal nga géej gi ci leer te Sénégal fii malalta fi ëpp malalta malalta nag wérul malalta moo wér las xam shérif ñu bari laskam la ñuy wax te laskam amul ci arab tradition bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jàngee tarixa bi di koy bind ci français bi jawaratul kamal ku ko bëgg a jàng mu leer dangay xool mbind ma ci arab nañ ko bindee moo bind laskam waaye laskam boobu moom wérut te bi ñëwee ci mbooloo mi gis nañu ñëpp laskam la ñuy wax aynil maarifi nigériens yi ñoo njëkk bind jawaratul kamal ci àddina ci li ñu yëg gannaaw marocain yi ñoom nag seen nuun dafa jegeeg seen raa ay boobu dafa xawa a ni doog ay ni soo ne ay ni maarifi mooy mbaamu xam yàlla soo ne ay ni maarifi mooy jëmmi xam yàlla kon ay ni bokkut ak ay loolu it mu nekk yoo xam ne dañ koy observé ci wasifa yi waaye bi mu ñëwee fii fekkuñu ko fi suñuy dugg ci wasifa waa Dakar dañuy amee seen diine bopp dama koy waxtaan ak sa Souleymane toujours bu ñëwee fekk ñuy wasifa au lieu ñu dugg toog waaye dañuy gis ñu kabar kabar bu gàtt toog toogaay mel ni ko taayee seen mën julli ko amul koo amul te na ci jàkk yi moom bu fekk ñuy wasi bi il faut ngis ko ne allahu akbar nii toog tuuti taayee seen mën ñëw ci xadra ba boo mooy damaa gis diw di koy def al islaamu yunqalu bi naqli waaye laa bil aqli islam koy tabax yëpp naa bil aqli bi naqli laa bil aqli islam li bi tëral loolu ca koy def waaye bu waxee ne ni ma ko xalaatee toujours débat yi je pense rek ngay dégg ñuy wax je pense na tëralul islam doxalu ko islam da ngay wax ne je trouve fekk naa yonent bi nangam ça il faut le dire kon loolu ñu ciy bàyyi xel waaye yàlla dimbali ñu biñ ñëwee fii yooyu yëpp fekkuñ ko fi ay ni lañ fi fekk kam lañ fi fekk naka noonu tamit malata lañ fi fekk loolu nag ki ko liggéey mooy Cheikh Ibrahima Aïdara sa crédit ci lay dugg ndax doom aadama yi ku tàggat seen làmmiñ ba mën a wax baat ya nga tàggat seen xol bañ mën a muy sedd ba nga tàggat seen jëmm bañ mën a dund Seexu Tijaan rasulullah heure bu jot ñu ñëw ji la fiy fekk ba mu nekk ca kaw ak ba mu nekk ca kër gën a njëkk a wax tey ak bi mu agsi fii chérif lépp yow la lépp yow la kon ñun dañu ci sant te dina ciy gërëm di ciy kontaan di ci yëg suñ bopp dama wax ni dëkk bi ñuy wax ordone ci àddina bi amuñu doole yi arab yi am réewu arab ba mu dendal saoudia moo koy jox courant moo koy jox ndox loolu moom dal na ma man ci suñ jumaa ka fay nodd ma nga ne sa njaboot la bokk muy ñes suñ burdu bi ka koy ubbi ma nga nelee xaasin sa njaboot la bokk ka fay bayaan muy Sidi Mbay mu ngi nii sa njaboot la bokk kon yow boo seppee sa loxo ci ñun fuñ jëm waaw sas mooy noot mooy lëttaam mooy bayaan lépp njabootam la waaye ñëw bu ma dar suba ña fay jàng ñëpp ay taalibim la ba tax moo wax ne man ñun ci toolu shérif ci la ñuy bay ndax dañoo fekk mu wulli fii ba mu nooy yaakaar naa baykat yi xam nañu wulli ba tool yi nooy kii di fay waxtaan tey sa njaboot la ka ñuy burdaal sa njaboot la ka ñuy nodd nodd gi nga xam ne moom moo ci sës imaam jóg mu wax moom la mu ngi nii mën naa la tegal note dam gi saa yu note dama koy enregistré sama téléphone boole ko xutba bi oustaz lépp njabootu shérif la kon rafet na ñu sol suñu dàll yéen ñi njabootam xam ne fi ngeen teg seen tànk foofu la Sénégal nag leen yàlla na too mooy essayer essayer rek oustaz Sénégal dañuy essayer rek essayer baaxul waaye na ngeen pattiiral gëm a durus ci kii ñu yàlla booleel taxawu ko liggéeyal ko koo xam ne du wax mukk ci boppam ami may lool te doo ko dégg boo ko déggaatee ci kilifa nga ko dégg ku mel ni Thierno Bachir ñëw ci tànt ustaas ñëpp ñu toog mu ne shérif mii mooy ñaan ndax ñaan gi nangu tey ci loxoom la ko yàlla jaarale ñaata yoon kon kooku bu yàlla boolee da ngay yokk pas-pas dëkk bi nag am na ndox mu fi nekk moo xam ne bu leen ko naan ñun suñu sëriñ def naa ñu wax ne laa tatakarrau min kulli hawdin bu leen naan ñëpp ndox mooy ndoxu essayé am na ñoo xam ni ñaan nañ ci tariq ci fukki nit ak juróom ci réew mi fukki nit kuñ dem rek sànni sa kurus ne may ma sama tariq loolu baaxul kenn ko may mu ngi dund ak dund yëpp feeg daggul ci tariqa bi dagguloo waaye ku xew rek nga dem mu jox la tariqa fi ne nii léeg-léeg ñaari sëriñ yooyu des na nag ñoom mu waa ka jël tariqa day jaxasoo keru kenn ki nga dem mu jël ci moom tariqa doy na sëkk jàpp seen diini bu dëgër comme ni ko chérif bi waxee Oustaz Sidi sëriñ fi walaay moom mooy waxtaan man damay nuyoo yàlla dafa def ma woo ko téléphone ne ko chérif mooma la abal ci saa nekkul seen dëkk soxlawul la ci soxla nga ñëw waxtaanal ni mu ne ma ko nag dañoo jóge ci gàmm te lépp yonent moom ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy liggéey du moom kenn bokk na koog ñi bari ñooña nag mooy saxaaba yi Aboubacar Ousmane Ali Omar Omar Ali ñooñu ñëpp ku ne def lu baax ci diine. ba yonent bi ne law annakum gayra ashaabi anfaqa misla jabali uhudi zaaban maa balaqa nasifahu wala tullusahu wala xumusahu wala sumusahu sumunahu kenn ci yéen ku dul sama saxaaba bu jëloon li toll ni ku jabalu uhud ci or nga xam ne man na ay mille tonnes mu saraxe ko du tolloog benn mudd saxaaba joxe kon saxaaba ñu ne ko yonent la war waral loolu mu ne seen pas-pas ci man dafa bokkut ak seeni pas-pas ci yéen ndax ñii ci ñoom ku nekk dee ñëw na nga ne yeneen yonent bi dundal ma dee kere dañuy rey tal talxetu ma ngi tëdd ci kaw rasulullah ñu koy fett bal kon nag ñii émule na yéen bi islaam yëngatoo ba dox ba nit ñi commencé dugg xam nga doom aadama yi ñoom dañuy ñëw bees rek bëgg a dem ca kanam jël lépp yonent bi daf daan toog ñeenti saxaaba yi ak mubashirina yi daawuñ jot ci moom loolu nag métti ko mu boole ko yàlla yonent bi lu ko jaaxal du ko jël décision waaye samaam day wax yàlla ne ko yet nangam nga xew Aboubacar démb jàkk ji xat na ba mënuma nuyu Omar noonu Ousmane noonu Ali noonu yàlla ne yéen su la yonent bi waxatee puus leen na ngeen puus wa izaa qiila lakum unfusu fanfusu na ngeen may sahaaba yi ñooñu dañoo am ay distinction ci l'islam yoo xam ne kenn amu ko farfarloo xew ci àddina ba am groupe wala dëkk wala gox wala continent ne sahaaba yi kenn moo ci validé muy Seydina Ali li ci des ñëpp duñu dara comme ni ko chef bi waxee di leen saaga nag saaga woo xam ni maanaam saaga daal du ñaawee noonu Aboubacar ñu wax ci moom lu bon mu am ci Angleterre ku doon tuub benn tubaab ki ko doon tuubal ne ko waxal ne ashhadu an laa ilaha illallah tubaab bi wax ko ndax xam ne li muy firi waxadu ashhadu anna muhammadan rasulullah mu wax ko ndax xam ne li muy firi mu ne ko waxal ne ashhadu anna aliyan waliyullah aliyin waliyub yàlla la waa ji wax ko mu ne ko waxal ne aboubacar ak omar ak ousmane ñëpp dee nañ ci kéeféer tubaab bi ne ko loolu du ma ko wax kon ngeen xam ni danger bi nga xam ne mu ngi dox ci àddina dañ teg ko ci kaw yi saxaaba yi dafa garaaw ndeke Chérif wax na Oustaz Sidi Mbaye ne ko suñu gàmmoo ba noppi àjjuma juñ waxtaanee na nga waxtaanee benn saxaaba man it ma wax ma ne ma keneen la ma Chérif may wax ne ma Sidi mbay ne ma waaw yaa Chérif fu ngeen xalaatee ma ne ko déedéet moom moo xalaat mu balancé waale ma moo xalaat mu balancé waale ma kon nag na nga ñëw. balaa ñëw ci ajjuma ci yéen di waxtaan ak dundu Seydina Abu Bakar ni Siddiq waxtaan na ko ci jumaa moom waxtaan wa kenn du pare bëgg mu bàyyi dañ ja ba nga xam ne trent minutes yi doyu waa masjidu ilmi wa noor bu sëñ Mouhamadul Mansour 30 minutes yam fay waxtaan ak façon am moom i xam ngeen ne ko dëgg yàlla moom maa moom simple luñ waaw simple luñ dëgg waaw simple moo tax nag su ko shérif soxlaa rek waa ana waa ji mbay xorom mu ne am na xam-xam li muy wax ñeme na ko fa tabaarakallah mu waxtaane Seydina Aboubacar ni Siddiq ci waxtaan wu yéemu waxtaane Seydina Omar ci waxtaan wu yéemu tey mu waxtaane Seydina Ousmane di mu waxtaane ba wàcc bu ñëwee bu waxtaane ba wàcc day dugg ci néeg bi nuyu ma ma sant ko ma ne ko yow li nga doon waxtaanee damay dégg ngay tudd ay baati arab yu yéemu mu ne ma imaam bul foo ne waxtaan yi damay ñëw rek taxaw de damay bind xutba ma ne ko sa xutba gi lay xutba tey lam doon waxtaane oustaz moom laa xutba muy oustaz Sidi Mbaye kon nga xam ne sa ndongo li nga xam ne mën nga fa ma nga fa taxawee xam-xam taxawee lu rafet li mu waxtaan ba ma paree lan rek lépp laa jàpp waaye la ma ci gën a dund mooy li Sidi Mbaye wax ne tabeet Seydina Ousmane taalibe bu ne war nga ko roy gis nga li ñuy wax joxe mooy wilaaye piir sa ñaani saaxo papay Modou Faye mi mu ne koo dégg nit ñu rang alal di koy sotti alal di sottee ko ci moom te du joxe du waliyu commerçant buy làkkutoo wilaya laa ah, waaw moom ci waaye mu ne nitu yàlla dëgg-dëgg bu alal ji ñëwee daf koy sànni nit ñi du ko bëgg sëñ Bamba naar ba dafa ñëw tiim ko ñu koy sotti alal bam fees sëñ Tuubaa toog takkusaan ba timis maye ko ba alal jeex mu jumi julli ji timis naar ba ba mu ñëwee def na ko yow xam naa ne waliyu piir nga tafaraqatil amwaalu minka sasar masar banaanuka laa tabqi wa kafuka laa tazar maa ngay gis alal ji ni ñu la koy joxee ak ni ñu koy xottee ni ñu koy bañee ni ñu koy sànnee nitu yàlla piir la ci ëllëg sa ñu indilaat ko lu nu toll benn géwél ñëw toog sama mbokk yi ne ko ah sëñ bi li ñu jóoral nii de day yàqal nit mu ne ko moo ko fekk waaw <laughs> ah, li ko moo ko mu buub yóbbu waaw ah, mu buub yóbbu ndax ñoom soxla nañ ko ngay gis ne chérif wala yu biir biir biir loxo ba day tànn chérif sëriñ day mën a joxe. ma ne la képp ku ñuy rang ni koy sotti ni million bu pare mu def ko ci banque denc kenn du ci lekk sa ñaari sax mu ne commerçant buy làqoo wilaaya la ah la loo xam ne dafa làqoo wilaaya waaye mu ne nitu yàlla piir ñu koy njëkkee xam joxe bu ëllëg jotee mu julli. bool ba jotee mu julli loolu mooy waliyu bu ngeen xamut waliyu mooy koo xam ne lu am jox ko nit ñi bu yàlla jotee mu jox ko boppam. kon fa xay Haydara yaram waa ngi bëgg a tàng te xam nga barab yi waluñ fay ñëw di wane suñu jikko waaw yow moom dañ buñ tasee yow dañuy masqué wu rek suñu wéetee gaa yi nag lekk ca mbaña mbañaay jama ja saa xam nga ma jaay jamaam mooy boo gisul sa sëriñ rek loo neex wax loo neex waaw buñ gisee sëñ bi daal dañ naan yokk yokk wax ndànk mais bu sëñ bi ko rek ñu dem te ma njaay jama waaw wa tabarakallahu kon Haydara eh, du ma waxtaane Seydina Ousmane ndax kii eh, lam ci wax doy na ma lim ci nar a waxi na ma man ak oustaz nag dafa am luñ wasfoo sërif ñun dañ ko tuddee garab ak garab ak déem déem ko sànnee xeer ba pare boo sëggee rek mooy moom saa yëpp sànni xeer loo sànni sànni boo tasee moom may la xaalis waaye boo ne ñàkk ci gërëm ak diim da nga wax ne kaayam lekk takkale ma de wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu